أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi ba tey ci suratul baqara di tàmbalee tey aaya 28 ba aaya 29 ñaari aaya yi nekk sunu karam borom bi tabaraka wa taala dinañ ci jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy inkaarul kufru billahi taala yàlla day dafa bañ dafa weddi képp ku ko weddi moom yàlla bëggul jullit bëggul doomu aadama weddi ko loolu dinañ ko jàng ci ay yi nekk sunu kanam yàlla bëggul ku ko weddi inkaar da kaa bañ complètement ñaareel mooy iqaamatul burhan ala wujudillahi wa qudratihi wa rahmatihi borom bi tabaraka wa taala mi ngi taxawal ay preuve ay lay yu leer yi wane ne moom yàlla tabaraka wa taala ku am la iqamatul burhan ala wujudillahi taala yàlla pour moom mu wane ne moom dafa am loolu waxu ko nii rek pour nit ñi ñëw daal ne non yàlla déedéet yàlla dafa taxawal ay dalil ay preuve yu leer mu teg ko ci kaw taabal ji yoo xam ne bu ko doomu aadama laaleeg loxoom gis ko bu ko xoolee gis ko bu ko laalee yëg ko bu ko ñemee xam lu muy saf moom allah subhanahu wa taala waaye borom bi tabaraka wa taala loolu da cee boole kattanam ak yërmandeem pour nit ñi xam ne yàlla ku am la ñetteel mooy xuliyatu kullu ma fi l ardi min altaami walmasharib wa malabis wa marakib illa ma xaramahu dalil alxaas min alkitaabi wassunna xalaqa lakum ma fi l ardi jamia lépp lu nekk ci kaw suuf ci lekk ci naan ci col ci waruwaay lépp lu nekk ci kaw suuf lu dul li teg si ñëw ne araam na yàlla jullit bi la ko defaral doomu aadama moo ko moom lépp lu nekk ci kaw suuf lu mu mën a doon su teg si ñëwul ne araam na doomu aadama moo ko moom kon loolu rek day wane ne yàlla xañuñu dara yàlla tëjuñu ci kaso bal daf ñu libéré ndax lépp lu nekk ci kaw suuf lu dul lu mu ñu araamal ñun ñoo ko moom te sooy xool li yàlla araamal lu tuuti la lekk boo ci doon xool li yàlla araamal lu tuuti la naan boo ci doon xool li la yàlla tere lu tuuti la sol boo doon xool li la yàlla tere lu tuuti la lu mu mën a doon ci li yàlla tere ak li la yàlla daganal boo ko doon xool li dagan li la wër moo ëpp téeméeri yoon kon aaye yooyu ñu war a jàng war ko jël darsu tey ay ñetti mbir yooyu lañ ciy jëlee ñetti mbir yooyu la ñuy jàngal borom bi tabaraka wa taala mu ne audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات wa huwa bi kulli shay'in alim yaqulu jalla wa ala buur tabaraka wa taala mu ne aaya yi dañul di wax ak yéeféer yi ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla tabaraka wa taala ñi nga xam ne yàlla misaal na leen jox na ci ñoom ay misaal yàlla ne ñi mel nii ñi mel nii ñi mel nii ñépp ay yéeféer lañ ay kàccoor lañ ci aaya yi passé yàlla joxe seeni sifaat ak seenu ñaaw melokaan léegi nag borom bi daal di wax aaya yi pour lan pour tourner seen gis-gis ñoom ñu weddi yàlla ana lan moo tax ñuy weddi yàlla képp ku weddi yàlla rek yàlla mu ngi lay poser question di la laaj yow mi ko weddi lan moo tax nga weddi ko te lu jaadu la bur bu toll na yàlla ak fi mu jaar ak doomu aadama fi mu jaar ak mbindeef ba doomu aadama sotti taxaw nekk doomu aadama mu tourné amul lenn lu muy delloo yàlla njukkal lu lu dul di ko weddi kon jaadu na buur bi ne ko yow lu tax nga may weddi moo tax mu ne kayfa takfuruna billah kayfa naka takfuruna ngeen di weddee billahi yàlla naka la doomu aadama di weddee yàlla nu mun a nekkee istifham bi huna li taajub laaj la bu ànd ak waaru ki lay laaj daf lay laaj laaj boo xam ne da cee waaru yow nooy weddee yàlla lu waral loolu léeg-léeg sax bu doon sa baay la jaar ak yow ci yenn melokaan yi ba nga def ko lenn lu jaadul da ngay gis nit ñi ñëw ne la yow yow lii noo ko mënee même bu doon ci bureau nga nekk di liggéey patron bi jaar ak yow ci yenn melokaan yi nga def dara dinañ ñëw ne la yow yow yaa def lii yow yow lii nga def fii fii yow noo mënee lii loolu la yàlla di jaar ak doomu aadama ndax yàlla fi mu jaar ak doomu aadama dafa sori moo tax yàlla di tourner attention ne ko yow fi ma jaar ak yow yépp yow yaay ñëw tey di ma weddi kayfa takfuruna billah naka ngeen di weddee yàlla naka nu mu mën a wéree il faut ngeen indi dalil buy wane ne yéen am ngeen droit weddi yàlla te du ngeen ko am lu tax ngeen def ko ak a ñaaw seen melokaan bi seen wax ji seen jëf ji te mooy weddi yàlla kayfa naka takfuru na ngeen di weddee billaahi yàlla te wa kuntum yéen ñi wa kuntum nekkoon ngeen am waatan di ay néew yéen ñëpp da ngeen a deewoon yàlla dundal leen kañ lañ nekkoon ay néew ñun ci quraan borom bi mu ngi wax hal ata alal insaan hiinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura mbokk yi fii ñu toog fii ci biir ja jumaa ji 1901 ku fi nekkoon nekk ci loxoom ku fi nekkoon 1902 yëkkati sa loxoom 1905 ku fi nekkoon yëkkati sa loxoom 1910
fii 1947 1920 Baba nee na fii 1940 sax amu fi 50 kon fan lañ nekkoon moment boobu ñun fu mu nekkoon wa kuntum am waatan da ngeen a deewoon boobu kenn dundul woon ñun ñëpp dañoo nekkoon ay néew si ngeen yàlla wa kuntum am waat da ngeen a faatu woon kenn ci yéen dundul existé wu leen woon amu leen woon kon ki leen amal est-ce que jaadu na ngeen weddi ko jaaduwul maanaam mu commencé ak ñun foofu kayfa takfurna billah naka ngeen di weddee yàlla te yéen ñii di dégg yéen ñëpp wa kuntum am waatan ay néew ngeen nekkoon da ngeen a faatu woon ndeysaan wa kuntum am waat ay néew ngeen woon da ngeen a faatu kon day wane ne yàlla am na fa min al adal- adillati wujudihi al ah al ahya baada al mawt al ihya baada al mawt kon day wane ne yàlla am na yàlla mi la jële ci dee indi la ci dund day wane ne am na kon noo koy weddee ki la amal xamal la yow mii maa la amal maa la indi fii nga tourné ne yow moomu amoo yow moomu indi ma amal ma indi fi sama ndey ak sama baay yow amoo est-ce que loolu xel nangu na ko xel nangu ko moo tax yàlla di ñu laaj mu ne naka ngeen may weddee naka ngeen may weddee te yéen ñii wa kuntum amwaatan ay néew ngeen woon da ngeen a faatu woon summa fa ahyaakum gis nga mooy da ngeen a dee rek mu dundal leen fa ahyaakum ngeen dund seen biir yaay wala ngeen dund fii ci àdduna nekkoon ay néew amu leen wala ngeen nekkoon ay néew ci seen biiru yaay nekk ndox ak mani yu deret yàpp yàlla jël leen bind leen fa ahyaakum mu dundal leen ngeen nekk ay bébé ngeen nekk ay nit exister ci àdduna fan lañ tàmbale woon ci dee moo tax ci suratul mulk yàlla bi muy wax tabaraka alladi bi yadihi l mulk wa huwa ala kulli cheyin qadir lu mu wax alladi xalaqal mawt gis nga kon dee moo njëkk a am dund doog a ñëw alladi xalaqal mawt yàlla mi bind dee wal xayaata après mu bind dund fii bi mu ñuy wax lu mu wax wa kuntum amwaatan fa ahyaakum yàlla lan la bindee nit ndox ak yàpp ak deret ndox ak yàpp ak deret am na tey ci suufalaamu am na ku nekk tey mun ngaa ut yàpp ut ndox ut deret dama nga ut yàpp ak ndox ak deret nga def ko sa paan nga jël benn palaat nga ub ko nga takk paan bi moom dëgër nga dugal sa ron lal nga bàyyi 40 jours ndax di nga am doom day nëb
boo bëggee duggaat ci néeg boobu xasawaay moo lay rey te pourtant ndox moomu la yàlla jël moom la ñu yàlla bindee ñun ñëpp te ndox mi doy na waar doy waar goo xam ne ku mu takk sa yére boo xëyee suba fóot ko ku mu takk sa yaram boo xëyee suba sangu kenn bëggul gis ndox moomu yàlla bind na la ci ndox moomu la la bindee ndox moo xam ne dafa salte ndox moomu la jël génne ko fu mu génnee ci góor mooy fu ñuy tuure ndox muy sawee fu mu génnee ci jigéen mooy fu ñu muy sawee fu muy tuuree ndox kon doomu aadama mooy kan est-ce que kii war na weddi yàlla kon waroo weddi yàlla xoola yàlla fu mu jaar ak yow xoola fu mu la bindalee xoola fu mu la denc xoola bi génn jotee fi mu la génnee fan la la jaarale kon waroo weddi yàlla amoo droit weddi yàlla yow fa ahyaakum yàlla nee na ma dundal leen summa après gis nga fii bi muy wax kayfa takfuruna wa kuntum amwaatan waxul summa ahyaakum fa summa mooy après dund gu yàgg loolu mooy summa doomu aadama day dund ñëw ci aw àdduna nekk liir ñuy yëkkati di wëlbati di sang di couche ba yàgg muy raam muy toog ba càgg muy raam ba càgg muy jóg taxaw di daanu ba càgg muy dox ba càgg mu commencé wax ba càgg mu commencé màgg commencé di liggéey nekk ponkal fii mu jaar yëpp kan moo ko defal loolu moom moo ko defal boppam yàlla fa ahyaakum yàlla nee na ma dundal leen après summa loolu yëpp dund googu nag bu demee ba mu neex ko nu mu yàggee noonu yu muy tukku mu ñëwaat rey leen ñu jël leen dugal ci bàmmeel yi kon delluwaat ngeen cosaan delluwaat nañ cosaan lan mooy suñu cosaan après ñu dund après ñu deewaat suñu deewaatee summa après ci bàmmeel ya foofu ñu yàgg gis nga comme dekki ñëwagul summa mooy ñëw ndax bàmmeel yi foog ñu yàggaat fi jàng al jàng alxuraan ak wax mënul ànd il faut noppi yàlla mu ne dee la woon dund dee après summa yuhyikum mu dekkilaat leen lu boobu dekki fan la laaxira kon doomu aadama ñaata dund lay dund doomu aadama ñaata dund lay dund hmm? non man man bañ naa ko de da ngay dund fii àdduna nga dundaat barzaq nga dundaat alaxira waaye dund yi du benn de dund fii àdduna day ànd ak ruu ànd ak sa bakkan dund boo demee alaxira nag ruu bi mooy dund barzaq wa min waraihim barzaq ila yawmi yubaasuun soo jógee barzaq nga dem alaxira ñu lënkalewaat ñaar yi waaye foofu ruu bi mooy jiitu fii àdduna bakkan moo jiitu bakkan moo jiite àdduna alaxira ruu mooy jiitu ñoom ñaar ñëpp ñu lënkale leen bu fekkee dama doon jaamu yàlla ñu fay la nga duggi aljanna boo ma yoon yàlla ñu fay la nga dem safara su ko defee doomu aadama war a góor góorlu kon ci dund yooyu ñu ko wax te borom bi tabaraka wa taala di ko jàjj di ko wax ne moom doomu aadama warul weddi yàlla doomu aadama warul weddi yàlla moo tax yàlla tabaraka wa taala mu ne naka ngeen may weddee naka ngeen may weddee man yàlla kayfa takfuruna billah nu ngeen di weddee yàlla ndax moom yàlla kat wa kuntum am waatan da ngeen nekkoon ay néew ngeen faatu fa ahyaakum moom yàlla mu dekkil leen ay bisa ngi ñëw summa yumiitukum daf leen di rey ngeen dee kenn ci yéen dootul dundaat lan mooy dee dee mooy lan dee dee mooy lan dee lan mooy dee yàlla misaal nañu ko léegi léegi rek fi ñu toog yàlla misaal nañu dee gisu leen misaal bi dama doon wax ci micro bi ñëpp di dégg boobu lu fi nekkoon courant
biñ dindee courant bi ana micro bi daa dem micro bi dem na micro bi dem na Issa micro bi dafa dem micro baa ngi nii lu tax du- lu tax marché tul amatul njëriñ courant bi dem na roue bi dem na léegi nag mu des yaram bi yaram bi moom nekk daa dee fi mu nekk nii complètement lii mooy dee dee mu ngi nii de yàlla de roue doomu aadama li ko yàlla bindee mooy yaram ak roue yaram ak ruu yaram lan moo ko composé suuf lañ ko defaree moo tax bu deewee ñu dugalaat ko ci biir suuf comme ci suuf la génne woon su dee ñu delloo ko ci suuf minha xalaqnaakum suuf laa leen bindee wa fiha nuidukum bu ngeen dee ma delloo leen wa minha su ngeen dee ma génnewaat leen ci suuf gis nga lépp suuf la ñun suñu lépp suuf la moo tax fii la yàlla bind fii lañ yàlla préparé fii lañ mën a dundee fi mu nekk boo amoon oxygène nga dem kaw asamaan nit bu jeexee da ngay dee wala nga ñëwaat boo amoon oxygène nga dem ci biir ndox mi bu jeexee ñibbi rek doomu aadama mënul dund ci ndox mënul dund kaw asamaan fan nga mën a dund kaw suuf fii la la yàlla préparé fii nga mën a dund fii ngay dundee fii ngay dee fii lañ lay génnee yowmal qiyaam nga war a dékki ci suuf si wa kuntum amwaatan yàlla nee na ma rey leen doomu aadama yaramam suuf la ruu la ci yàlla dugal lan moo tax doomu aadama di dee mooy ruu gi su amee lu ñëw ci yaram bi yaram bi mënatul supporter métit bi wala taraay bi wala loolu ñëw ci moom lu mu mën a doon su ko ruu bi mënatul supporter rek ruu bi day daw mi ngi mel ne voltage lampe bi bu courant bu ëpp bi ñëwee lampe bi nu muy def day exploser parce que sësaay sës na loolu mooy dee bu ci voltage bi génnee mu dee su ëppee mu dee moom kay fi ko yàlla wax rek limite bi rek limite bi mooy ruu gi ni ko yàlla defaree noonu rek la mën a dundee dee mooy koo xam ne yaramam ruu bi génn na ci ku yaramam génn ci ruu bi rek ruu bi su génnee ci yaram bi rek mooy waa ji dee na terminé loolu mooy dee kooku nag moo xam suul nañ ko moo xam suuluñu ko moo xam bukki yee ko lekk moo xam tilli yee ko lekk dee na yaram bi ruu bi génn na ci dee na lan mooy ruu wa yasalunaka ani ruuhi quli ruuh min amri rabbi ñi ngi lay laaj ruu ruu mooy lan mu ne kooku sa mbir borom la kooku moom yoonu doomu aadama nekku ci gaa yi li ñuy kannasu kannasu nag xamuñu ruu nu mu mel ak fu mu nekk yéen ñun ñi toog fii yëpp ku ku ku nekk na wax ruwam fu mu nekk an sa ruu sa bopp la nekk ana seen ruu kenn xamul sa ruu fu mu nekk secret la boo xam ne yàlla moo ko moom moom lay branché doomu aadama doomu aadama dund su ko dindee doomu aadama nekk néew su ko coppatee rek nga nekk néew ndeysaan loolu yàlla tabaraka wa taala moo koy dugal ci biir bi jigéen bi ëmbee malaaka mooy ñëw dugg ci biir bi waaw wax kii day gudd fan wala day gàtt fan branché ruu bi wax day gudd fan day gàtt fan day am wërsëg day ñàkk xalaas daal di branché ruu doomu aadama daal di dund ànd ak ruwam continuer ak moom bu faatu jotee yàlla yónni malaaka bi ne ko ruu boobu nga ci dugaloon mu ne ah ñoom dama ngay ndikku malaaka bi buy jël si ruu day ànd ak benn cortège su malaaka juróom lañ muy jël si ruu doomu aadama ñooñu la yàlla di giñ ci wan naziaati garqa yàlla mu ne giñ naa ci malaaka yi nga xam ne ñooy buddi ruuxu kàccoor yi wan naashitaati giñ naa ci malaaka yi nga xam ne ñooy rocci ruuxu jullit jullit ruuxam buy génn ci moom day mel ne ku doon ñaw ku yor puso di ñaw su borosee ba puso bi fees mu xëcc fekk takkul geenu wëñ bi nu muy def da koy rocceeku waat gis nga noonu mu roccee ko noonu la ruuxu jullit di génnee ci ru ci yaramam beneen riwaaya bi mu ne mu ngi mel ne jigéen buy mooñ sunguf kawar gi daal di dugg ci biir sunguf si noonu jigéen bi di dindee kawar gi ndax dafa am coono bu koy dindi day am coono ah déggu leen ma de ndaw saa ngi mooñ benn kawaram daal dinay dugg ci biir sunguf si mu koy gis nii ndax bu koy dindi day am problème nii rek lay dafa la nii daan ne ko nii noonu la ñuy dindee ruuxu jullit ci yaramam unzur maqaadaka fil janna xoolal sa kër ci aljanna mu xippi bët yi rek ñu xëcc ruu bi yonent bi nee na bët yi daal di topp ruu bi bu dee ruuxu ku baax la ñu yóbbu ko asamaan ba mu yegg ci yàlla ñu jël denc ilay yiin bu dee ruuxu kàccoor la bandi la ñu yóbbu fan si jiin du dem kaw asamaan si jiin la jëm kon loolu mooy dee dee mooy koo xam ne yaramam ruux bi génn na ci loolu mooy dee loolu la yàlla wax fii summa yumiitukum yàlla nee na topp ma rey leen summa yuhyiikum ma dekkil leen summa topp turjauna ilayhi ilayhi turjaun summa topp turjauna ngeen dellu ilayhi ci moom yàlla wala ilayhi ci moom yàlla turjauna ngeen di dellu ah fan lañ jóge woon ci yàlla ci moom la ñuy delluwaat moo tax bu nit deewee ngeen dégg ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gis nga ci yàlla lañ bàyyee ko woon ci yàlla la ñuy delluwaat waaye nag dellu gi dellu gi mooy problème lenn saa yi nit tukki ñu ne ko da ngay dellu mu bañ lu tax loolu
defoon fii lu baax.
deful fa mu demoon lu baax ñu bett ko rek ne ko eh da ngay ñibbi suba mu commencé di xiinal bët wala mu jaral ko mu daw fàq lu tax parce que bi mu demee bàyyiwul woon xel ne day ñibbi moo tax gis nga doomu aadama bu ñu nee deene rek nga gis mbokk mi commencé jooy parce que benn bëgguñu woon mu dem deux xamuñu moom mi dem li mu fekki waaye bu ñu waroon ne bu ñu leeroon ne kenn ku nekk ci ñun boo dee àjjana nga jëm est-ce que seen waa kër dinañ jooy ah ku ñu xamoon ne léegi-léegi boo demee pare Abdoulaye Wade da lay recevoir yéen ñaar ngeen toog sa waa kër dañuy jooy yi ree lu tax ñuy ree dañuy kontaan parce que xam naa ne foofu baax na da nga am dara.
da nga am dara léegi lu tax kuñ ne dem nga ci yàlla ñuy jooy
ñu yaakaar ne ñu doon fekk lu baax.
kon defoo ko woon loolu mooy wax ji moo tax nag dañu bàyyi xel aaya bi yàlla nee na summa ilayhi turjaun yàgg yàgg yàgg da ngeen di dellu ci man afa hasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna turjaun da ngeen a yaakaar ne dama leen a bind pour fo ngeen ñëw ci àdduna àdduna neex ngeen di fo ba yaakaar ne du ngeen dellu ngeen nax seen bopp bis il faut bis ñëw ñu ne guddi na gaaw leen ku la gën a jege kuy sa xarit du am jàmm xanaa ñu suuli la sànn la ci àll bi feeg yaa ngi ci kër gi kenn du añ kenn du reer kenn du ndékki su keroogee sa xarit yi la gën a jege ñooy takkaayu seeni kaala takk seen ndigg sang la sang la teg la ci oto yóbbu la ba armeel yi gas ba mu xóot daal lay suwal daal di ñibbi kenn du añ te suuluñu la kenn du reer te suuluñu la te ñi la gën a bëgg ñi la gën a jege ñoo lay def loolu te kenn ku ci nekk buy def loolu da koy xeeb da koy def ak cawarte day def ak kontaan day dóor peel bi bu baax di gas di yëkkati yenn saa yi sa kër kooku nga dékku ne na xóot na xóot na xóot xóotul yenn saa yi nga gis ñuy kereel waa ji gas naan ko li nga gas xóotul na xóot allahu akbar ñu gas ba mu xóot ñu naan mbokk yi ana ñi ko gën a jege nga dégg ñu ne diw diw diw eh eh yow kay kay kay kay kay Eh, di- kay kay kay ndeysaan. allahu akbar waa jaa ngi ne la rek tëdd ñu ñëw ñu ne dugal leen ko ñu daa dugal seen benn tànk ci biir pax bi génne yeneen yi bu ñu dugalee seen tànk ci biir pax bi benn dañuy génne beneen bu dee ñu baax ñu doon dund diine ñooñu xam nañ li ñuy wax ñu ne bismillah ala millati rasulillah ñu daal lay dugal bu dee ñuy dund bidaa la nga gis ku ñeme yàlla wàcc ci biir bàmmeel bi daat yi def ay ay mbiram wala am na benn kayit gu ndaw ñu ne laisser passer la laisser passer daal di koy dugal ci suuf njaganaay ku dekk ñu ne pour bu malaaka yi ñëw lii mooy laisser passer bu génnee kayit gi rek day dem aljanna ndeysaan mais li ma jaaxal mooy laisser passer boobu yonent bi amu ko woon te moom la yàlla yónni moom de bu ñu daan dugal nit day wax bismillah ala millati rasulillah ñu daal di dugal mu ne istaghfiru li akhikum haza fa innahu al-ana yus'al jéggalu leen seen mbokk mi heure bii ñu ngi koy laaj sahaaba yi ne yonent bi li ñuy wax mu ne allahumma thabbit mantiqahu inda su'al yàlla yàlla na nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj ndeysaan waaye suul nit dañ def fukki xulwaa ak benn wérul faatiha wérul ayatul kursi wérul dara wéru ci ñaan yi ñuy ñaan ci armeel yi dara wéru ci Yaasin wérul lu dul allahumma thabbit mantiqahu inda sual yàlla yàlla na nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj jeex na loolu rek la ñuy wax ñépp loolu la ñu war a wax yoon bi nee na bu ñu suulee waa ji na ngeen fa taxaw diir lu ñuy rey xar wala gëléem wala nag fees ko saam ko joxe ko ngeen di wax loolu yàlla yàlla na nga dëgëral làmmiñam buñ koy laaj yoon bi ne jéggulu leen seen waa ji ñu ngi koy laaj de alxuraan daal di ñëw yàlla mu ne yusabitu llahu alladina amanu bi qawli saabit ñi gëm yàlla bu ñu leen di laaj bu malaaka bi ñëwee bay laaj bokk na ci li muy laaj mooy maada kunta taqul ala haada al abdu muhammada muhammad mii loo doon wax ci moom bu fekkee mumin mu ne kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah man de gëmoon naa ne kii Muhammad mi li mu indi woon dëgg la te mu ngi ko jële woon ci yàlla su waxee loolu rek benn baat la ñuy dégg kaw asmaan mu naan sadaqa abdi sama jaam wax na dëgg lalal leen ko lali aljanna ñu yaatal bàmmeel bi de gauche à droite bu fekkee kàccoor la woon benn rapport la woon wala simbakat wala mbërum làmb buñ ko ne loo doon wax ci Muhammad mu ne ah ah laa adri laa adri xaw ma ko de malaaka ne ko laa talayta wala darayta xamoo yàlla boo xamati yonent bi nee na fa yudrab bi mitraqatin min xadid bayna uznayhi fa yasiihu sayxatan yasmaahu man yalihi illa al insi wal jinn dinañ ko dóor benn bool de diggante ñaari bët yi ñaari nopp yi dana yuuxu yuuxu boo xam ne ñépp ay dégg yuuxu yi ba mu des nit ak jinne ndeke kon ñun ñoo toog fii rek waaye sunu armeel yi ay yuuxu kese la borom bi nee na huwa moom yàlla bu ngeen buggee moo xam mooy kan ba waru leen koo weddi allazi mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal moo leen defaral maa fil ardi jamia lépp lu nekk ci kaw suuf yàlla nee na maa leen ko defaral kon kii est-ce que jar nañu weddi ko moo leen defaral lépp lu ngeen gis lu ngeen gisul lu ngeen xam lu ngeen xamul lépp yàlla moo nu ko defaral huwa alladi xalaqa lakum maa fil ardi jamia lan moo des li ngeen di war li ngeen di lekk li ngeen di naan li ngeen di sol lépp lu mën a doon yàlla nee na maa leen ko defaral est-ce que doomu aadama kon am la lu mu fi defar ku defar asamaan si ku defar suuf si ku defar géej gi ku defar dex gi ku defar jant bi ku defar weer wi ku defar biddéew wi ku defar ngelaw li ku ñu defar kon nit lu mu fi defar walladi yàlla mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen sàkkal moo leen defaral moo leen bindal maa fil ardi jamia lépp lu nekk ci kaw suuf lan moo des daal ne lépp maa ko defar kenn defaru fi dara kenn moomu fi dara aussi di fëgg dën maa moom maa moom maa moom bis ñëw nga dee bàyyi ko fi kon kay moomoo ko woon ñaar nga dégg ne maa moom oto bi sax moomoo ko dana ko dénk rek léegi nga wàcc ko keneen yëg ko romb ko romb la pentiraat ko beneen pentir sa jabar bi léegi keneen takk ko sa jëkkër léegi mu takk keneen sa kër gi léegi keneen dëkk ci kon loo fi moom kër yi ñu dëkkee ñaata nit ñoo ko dëkkee woon avant rabiatal adawi day wax ne booy dox ci kaw suuf doxal ndànk ci ay néew ngay dëgg doxal ndànk dëggal sa tànk ndànk fépp foo dëgg sa tànk suul nañ fa ku dee mu ne kon doxal ndànk fii ñu toog ci kaw ay néew lañ toog ah fii ngeen toog ci ay kaw nit yu dee ngeen toog bu yeboo ngeen toog ndànk balaa ñuy toog seen kaw di fayu yéen nit mu ne fooy dox doxal ndànk fépp suul nañ fa ay nit fi ay nit ñoo fi dëkkoon di da ngeen yaakaar ne ñu rek ñoo fi mos a dëkk déedéet ñii dañuy dee rek ñii di ñëw ñii dañuy dee rek ñii di ñëw noonu rek kon yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne awjada ma awjadahu min alxayrat al ard kullu dalika li ajlikum kay tantafiuna bihi fi hayatikum yàlla mooy ki nga xam ne moo amal bépp xéewal bu nekk ci kaw suuf pour ñun pour ñun la bépp xéewal lépp pour doomu aadama la kon kooku est-ce que yell na mu jaar ak yow fii defal la lépp ba pare yow nga taxaw di ko weddi boo amoon bàyyi mu jur la fu mu la war a juree sonn ci say étude ba nga am bépp diplôme mu yóbbu la Europe nga def formation yu garaaw ay at nga ñëwaat ñu jël la ci banque bi gën a garaaw ci banque yi wala ci benn place place yi ëpp xaalis ñu jël la fi nga xëy rek coup d'état paa bi dem fële Nord Foire jënd fa benn të kër takk benn tubaab daal di bind sa buntu kër ici Saint-Messon paa bi mënatulaa gis xamatul foo nekk ñu lay wër ba gis la nit ñi bu ñu la tegee ci taabal di wax ak yow lu ñu lay njëkk a wax kuy tontu kii nee na foo nekkoon lañ lay wax est-ce que foo nekkoon rek lañ lay wax non ba- baatu foo nekkoon dafa tuuti luñ lay wax yow yaa goreeti yow yaa yiis yow yaa bon yow yaa araam façon bu musi- musiba bu nekk nañ la ko wax lu tax parce que xam nga ne lii nga def waroo ko def waaw yàlla nag ki la indi amoo woon mu indi la amal la préparer la suuf si defal la fi lépp amoo loo koy delloo njukkal lu dul di ko weddi yow yaa bon ah est-ce que kon yow bonoo mu ne moom yàlla bi mu la indilee njëriñ yi nekk ci kaw suuf pour lan la pour ngeen jëriñoo ko yéen doomu aadama yi la kay tantafiuna bi ngir ngeen jëriñoo ko moom yàlla moo leen ko defaral ngir ngeen jëriñoo ko mu ne moom yàlla bi mu bindee lépp lu nekk ci kaw suuf pour yéen su ma topp istawa dafa kawe wartafaa wa ala ala wartafaa qahran laha yàlla tabaraka wa taala kawe na kaw asamaan yi suma topp istawa kawe na yëkkatiku na ila samaa yi jëm asamaan moom yàlla chaque jour ñu wax leen ne yàlla asamaan la njëkk a defar ak suuf loolu day wane ne moom borom kattan la lii ki ko doon defar fan la nekkoon ci kaw wala ci suuf ci suuf yàlla nag bi mu bind asamaan ci kaw asamaan la nekk di defar asamaan mooy wane ne moom borom kattan la tabaraka wa taala jalla jalaaluhu moom yàlla moo tax muy wane kattanam moom buur yàlla tabaraka wa taala mu tax képp kuy wax ne da ngaa ngande ku ndaw ku ndaw lu ngande day ngande ci moom waaye ku ngande dara dootul ngande ci yow kiy joxe dépasse 500 bu xëyee joxe dépasse 5000 lu muy wax ñu xëy na ko diwlin bi jaara lu muy wax xanaa da ngeen a dof yéen ma daan joxe téeméer te ma joxe cinq mille waaye gis nga yàlla moom mooy ponkal mu mag mi moo tax mu ne bi mu jubloo asamaan moom yàlla lan la ko def fa sawaahunna sabaa samawaat dakaa xotti mu nekk juróom-ñaari asamaan buñ doon jàng histoire planète yi wallahi ci la ñuy xam ne yàlla mooy yàlla borom bi dafa def ne jant bi rek moo fixé wu benn place yeneen yëpp dañuy wër di ko fii di fii di ko wër am na benn planète moo gën a jege jant bi nu mu tudd Atar moom ngeen di wax ci français
Mercure, Mercure, moo gën a jege jant bi Mercure, Mercure wala Mars Atar
Mercure, moo gën a jege am na bu ci tegu am na bu ci tegu am na bu ci tegu yépp dañuy wër xoolal planète yooyu kan moo ko amal est-ce que moo indi boppam dañuy xëy rek gis ko noonu muy tourner noonu am lumière bi mu am am vitesse bi mu am am na fa planète yoo xam ne bu ñu jëloon peel peel xam ngeen peel ñu tibb fa suuf suñ ko indee fii du fi xëj peel laa wax de tibb peel xëjul fii est-ce que xam ngeen lool xoolal bii moo ci gën a ndaw bii lañu yàlla préparé pour ñu nekk doomu aadama mënul dund ci yële te am na ci yoo xamante ne américains yi ba léegi demagum fa ñoom fan la ñuy yem suuf si rek suuf rek la planète bi lañ lañ yemagum am na yoo xam ne séen nañ leen temps yi lañ leen commencé séen planète yoo xam ne temps yi la leen américains yi commencé séen naan lëlëri planète la mais demaguñ fa seen fusils yeeg li ñuy sànni yépp kaw suuf rek la yemagum ak weer wi ñaar lañ demagum ñaar suuf ak weer yeneen yëpp eggaguñ fa kan moo ko defar loolu sax daa sori ndax peut-être boo koy wax fii di nga dina am ku gëlëm dañ leen dem biir géej ñu xool géej la fa nekk est-ce que xam ngeen ne géej àll la ay montagnes a ngi ci biir géej ay garab a ngi ci biir géej géej monde la comme ni àdduna nekkee monde ñooñu sax dañoo sori nañ dem alamul jinn jinne yi ñu ne ñooñu dañoo sori mais kon nañ ñëw fii ci suñu bopp fii nuy dund li fi nekk ci ay montagne li fi nekk ci ay garab ban forêt moo gën a ngand ci àdduna bi ah Amazonie.
Amazonie kan moo jëmbat garab yi foofu dañ ñoo ko ji boobu dafa sori nañ dem Casamance moo leen jege ku ko jëmbat moo tax gis nga aaya bi muy fe bi muy fin fii yàlla mu ne wallahu bi kulli shay'in alim al ilmu sifatun min sifatillah xam-xam dafa bokk ci melokaanu yàlla yi te yàlla li muy defar ku ko defar ba pare da ngay xam ne kii dafa am xam-xam wala li ñu doon wax sànq planète yi jant bi ki ko defar jant bi ñaata at la am gaa yi xamu leen ko bu ngeen demoon nga ni papa jant bi ñaata at la am danaa la yow foo nekkoon tey dalay xoolaat est-ce que kii doful lay wax ma woon fii laa ko fekk nga naan ma ñaata at la am loolu la sa papa di wax boo ko laajoon weer wi kazalika noonu la xoolal jant bi rek ki ko defar war ngeen xam ne am na xam-xam tubaab bi defar lampe bi rek daf laa yëm bii lampe bi di tàkk wala yàlla lampam bi moo gën a garaaw parce que du gurle te chaque jour mi ngi tàkk amul seconde bu muy toog di fay soo ko gisul guddi mi ngi leeral feneen yow yaa ko gisul nii de instant bi bul musa wax ne dafa fay am na ñu muy leeralal am na ñu nekk ci bëccëg instant bi ñuy wax ah kon musul fay bii nag yéen a ngi jooy courant Senelec parce que liggéey doomu aadama la jën yi ngeen di lekk géej gi mos naa grève ne jën jeex na ndox mi ngeen di naan ngelaw li ngeen di nooyi kon yàlla buñ nee dafa am xam-xam ñun ñëpp dañoo war a xam ne yàlla dafa am xam-xam wallahu bi kulli shay'in alim yàlla lépp la xam yamul foofu de mu ne qad ahaata allahu bi kulli shay'in ilma yàlla dafa peeg lépp xam-xam dafa yàlla da koo peeg yow nag xam-xam moo la peeg yàlla moom moo peeg xam-xam du benn déggu leen wax bi de est-ce que dégg ngeen wax bi qad ahaata allah allahu huwa allazi ahaata al ilm yàlla moo peeg xam-xam yow nag xam-xam moo la peeg xam nga lu tax yéen wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moo xam yéen xamu leen yéen wa ma utitum min al ilmi illa qalilan allahu akbar yàlla nee na yéen tuuti xam-xam ngeen xam tuuti médecin bi nga xam ne day opéré tuuti la xam expert tuuti la xam professeur savant ñooñu ñëpp tuuti lañ xam tuuti wa ma utitum min al ilmi illa qalil yàlla moom alimun hakim alimun xabir xoola yaalamu maa yaliju fil ardi wa ma yaxruju wa ma yanzilu min as-samaa'i wa ma kan moo xam buy taw ñaata toq ndox mooy wàcc kan moo xam ngelaw li naaw jëm asamaan ñaata lan mooy yéeg lii dugg ci biir suuf kan moo xam ñaata la pepp suuf yi ku ko xam ci beneen aaya yàlla mu ne xobu garab yi na wadd ak yu tooy yi yépp man yàlla xam naa ko xam naa jigéen lu mu ëmb góor la walla jigéen man yàlla xam naa ko fu mu koy amee kañ lay am doom man yàlla xam naa ko moom yàlla wa huwa maakum ayna ma kuntum kon xam-xam sifa la min sifatillah su ngeen xoolee àddina bi ngeen xam ne kii ki ko amal ko am xam-xam la kan moo ko ëpp xam-xam xoola asamaan boo xoolee ni mu nekk ci kaw ak li muy génne da nga naan asamaan ci kaw rek la war a nekk foofu daa sori ñëw lañ nañ ñëw ci suñu bopp wa fi anfusikum afala tubsirun yéen seen bopp du ngeen xool seen bopp sa nurikum ayatina fil afaq hatta yatabayyana lakum annahu alhaq yàlla nee na dinaa leen woon preuve yi ba ngeen xam ne man yàlla maay dëgg nañ ñëw ci suñu bopp kawar suñ nee kawar bopp bi fu mu nekk foofu la war a nekk wala waru faa nekk ñoom nañ xool kawar ko yàlla def foofu mooy place am wala du foofu dañu xool bët bu nekkoon ci suufu tànk nga dëgg fa mu yàq.
wala mu nekk ci dënn bi bu mu tegu ci boobu ngay xool nga ni nii wala gémmiñ nekk fi ci ginnaaw boo tibbee ba pare ni nii ci ginnaaw te xoolal ma ndax dugg na yow wala nopp mu nekk ci dënn wala mu nekk ci ginnaaw xool leen doomu aadama rek ku nekk na xool boppam sa bët yii yii fan fan la war a nekk ci yow pour nga gën a rafet bismillah nga am ko wax waay wallaahi soo xoolee bët fi mu nekk rek nga ni fii mooy place am ñu ne nopp nga ni ah xaaral ma laal ko ah kii tamit de fii la war a nekk ñu ne bakkan nag ah bakkan moom fan lañ fan lañ ma ko waroon defal xool ma xool ah man de gémmiñ nag loxo yi nag loxo kan moo naan sama tànk yi moo waroon ñëw ci kaw loxo yi ñëw ci suuf kon booy dox du baax de kon ku la gis daw hmm? ku la gis yuuxu ne kaay leen xool kii da nga koy gis rek yenn saa yi ci yi am yenn saa yi nga gis benn façon doomu aadama rek ci accident ni mu juddoo mu dema mu déformé wu koo gis rek tiit parce que yàlla mooy yàlla yàlla lu mu def xam nga lu tax mu ne alimun hakim yàlla dafa xam am xereñ ba pare xereñ ku xereñ mooy koo xam ne lu mu def rek ku gis danaan lii fii la war a nekk fi mu nekk bu ñu woowoon benn expert mu xool jumaa ji jàkk ji danaan lii lamp yi waruñu woon nekk fi ventilateur bi fii du place am parce que nangam ak nangam démontré ko léegi indi ci lu loo xam ne day convaincre nit ñi wala sa mbubb mi léegi benn tailleur ñëw ne non kii kii mënul ñëw waaye yàlla xoolal sa bopp xoolal sa bopp rek ndax di nga ne sama gémmiñ gi sama bëñ yii waruñu woon nekk ci biir wala bëñ yi waruñu woon toll nii wala daa waroon gudd wala sama làmmiñ bi daa waroon gudd ngande acca kenn du wax loolu de moo tax mu ne alimun hakim man yàlla damaa xam ba pare xereñal sama xam-xam mu xereñ lu ma def rek ku ko xool da nga naan nii la iskay iskay asamaan foofu mu nekk foofu la suuf fi mu nekk fii la tànk fi mu nekk foofu la loxo fi mu nekk foofu la xoola baaraam yi ni ko yàlla defee rek nga mën a dang ko ceeb bu daggul woon nii fi nekk baaraam yi bu daggul woon nii nga xam ne yépp a képp nooy dagge nooy nooy dankee doo dank de doo dank doo dagg waaye léeg-léeg nga coppati dagg dank ni nii affaire bi siit nga ni ko ceeb kañ ngay dellu risaatool gis nga yàlla tabaraka wa taala ci sunu bopp fii rek xoolal bopp ndox yi ci nekk bokkuñ ndox bi génn ci bët ndox bi génn ci bakkan ndox bi génn ci gémmiñ ndox bi génn ci nopp benn bokku ci te benn bu ci nekk sa fal force mu am ndox bët bu amuloon ndox nga am problème d'accord ngeen bakkan nag yenn saa yi ndox mi manqué nga dem ut mentalato di ko ci dugal ñu ne la mënu ko remplacer nga naan ma soj ma soj may leen ma mentalato amu leen ma mentalato te mal jëndal ma te pourtant yenn saa yi nga gis ku ne fem nga naan kii moo salte loolu bu amul woon ci yow sa bakkan yi ngelaw li doo nooyi gis nga gémmiñ gi su dul woon tooy gis nga booy lekk fi mu nekk nii ñu bari jàpp nañ ne lekk kenn xamul njëriñu sa gémmiñ tooy bi muy tooy booy lekk ndox mi day roose lekk bi machine bi yëy ndox mi roose ba mu tooy xepp daal di mokk mu daal di mën a jaar fii rittax ay bu amuloon ndox te gis nga ndox yi benn nuróowu ci bii daa lewet bii saf xorom ah benn bi wex gis ngeen bii bët dafa am kubéer bakkan amul kubéer gémmiñ am kubéer lu tax ñaar yi am kubéer ñaar yi amuñu kubéer ah gis ngeen nopp yàlla dafaa def ndox moo xamante ne gunóor bu ko fóon rek dee ndax poson la gunóor bu dugg sa nopp dee moo la ñu bàyyee ko noonu jarul ub lu ci dugg dee dégg ngeen loolu de moo la ñu bàyyi ko nii ku ci dugg rek dee waaw la fay nekk moo garaaw xoola bët tooyaay bi mu tooy moo tax bët bi tourné diggante yàpp yi ndox mi moo fa nekk di tourné bët bi ni ko neex mu tourné liquide bi moo fa nekk su ma nekkul woon rek bët bi day wow koŋ ni nii nga ni xojj waaw boobu nga gis nga am problème léeg-léeg mu am problème gis nga xoolal yi yàlla def yëpp hakim fi mu nekk nii bu bu bu commen- bu bët bi feebaree rek nga uti ndox moo ci def commencé paccal ñu lay utal ay toqal gut gut def ci ñetti toq soo yeewoo bu mi di jotee bay sedd gis nga ndox mi fa nga uti ko ah gis nga yàlla fa nga uti ndox boobu gis nga tey pour nga noyyi boo amoon problème noyyi gis ngeen pour ngeen xam njëriñu yi li nekk ci suñu bakkan yi gis ngeen bunt yi ñuy tëj yenn saa yi di ko wàcce bunt yi el yi côté yi il faut ñu def ci lan graisse pour mu wàcc ndànk kenn du dégg biir wi soo ko yéegal mu yéeg ndànk gis nga fi mu nekk nii bu fekkoon ne suñu bakkan yi amul li ci yàlla def ñun ñëpp bu ñuy noyee xam nga ni ñuy noyee noonu la ñuy noyee waaye fi mu nekk ni xoolal kenn ku nekk pour nga noyyi du am benn problème yaa ngi xëcc ci ngelaw li muy dugg nga koy génnewaat kenn déggul dara dafal dafal dafal gis nga gis nga kenn déggul dara daf yaa ngi ne selaw xam nga lu tax mu neex noonu dafa am lu ci tegu lu tegu ci bakkan yi nga xam ne ngelaw li day tegu rek di tax dem ba ci poumon yi daal di génnaat kan moo ko fa def yàlla tabaraka wa taala moo tax mu ne wallahu bi kulli shay'in alim kon mu ne kayfa naka takfuru na ngeen di weddee billahi yàlla wa kuntum nekkoon ngeen amwaatan ay néew fa ahyaakum mu dundal leen suma topp yumiitukum mu rey leen suma topp yuhyikum mu dundal leen suma topp turjauna ilayhi ñu delloo leen ci moom suma topp ilayhi ci moom turjauna ngeen di dellu huwa alladi moom yàlla mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen defaral moo leen bindal moo leen sàkkal maa fil ardi lépp lu nekk ci suuf jami an mbooleem seen lu mu mën a doon yàlla moo leen ko defar suma topp istawa kawe na mu daal di yem moom yàlla ila sama ci asamaan yi fa sawaahunna mu daal leen di xotti saba asamawaat mu tollale leen def leen juróom-ñaari asamaan saba asamawaat fa sawaahunna ay atamma xalqahunna mu mottali seen bind ñoom asamaan yi saba asamawaat juróom-ñaari asamaan tamaman yu mat sëkk jàngeen ci alquran yàlla mu ne wa minal ardi mislahunna suuf si tamit juróom-ñaar la asamaan juróom-ñaar mu ne wa huwa moom yàlla alimun ku xam la bi kulli shay'in ci lépp lu mu mën a doon moom yàlla xam na ko loolu mooy mbokk yi ñaari aay yu ñu doon jël dar su ngoon gi boo amee ay njuum dañu ngi koy jéggalu sunu borom di leen ko jéggalu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin